non saaga yu muy saaga ndax neex na la wala neexu la rek. mais waaw kon jeex na xaaral affaire bi pare nga noo tudd Asou. waaw c'est bon. maa ngi nii taxaw ak Asou moom nee na problème bu mu am nee na mënul nekk fidèle mënul génn ak benn góor. ci jàkkaar yi. jàkkaar yi c'est-à-dire. Saint-Valentin. non Saint-Valentin ñu rek na nga man man Abdoulaye tudd. waaw ok c'est bon. bon en maa ngi nii ak Abdou Abdou moom nee na mënul sëy lu weesu cinq minutes. munu ma non non boobu mooy ram muy gaaw. Saint-Valentin bay. firi rek. ah yaa ma gën xam noos rek sant yàlla. na la ko waaj a firi rek. ah yaa ma gën a xam. kese noo tudd Thierno Bocoum. Thierno mën naa la poser benn question. bon ak Thierno Bocoum Thierno mu ne moom nee na mënul sëy lu weesu cinq minutes. Ah, <laughs> loolu loolu en fait wax bu yàqu la <laughs> parce que. xam nga jeune bu bu mel ni man moom je m'entraîne macha allah ba pare sama sama alimentation maa ngi koy xoolaat bu baax ah te chaque matin may jël sama te ak donc lu am solo la ah yëf yu baax yaa ngi fi donc euh, loolu xam naa ne moom ram mooy gaaw rab rab bu dëgër bi lay mas le ah, signe surtout avec les filles c'est naturel cadeau gentil, donc euh, je peux pas intervenir là-dessus. Non, mais, mais tu vas donner conseil aux femmes. Les hommes, par exemple, oui, on, par, par, exemple, un homme quand tu donne cadeau, hmm. il va vouloir faire tchor tchor ligi ligi. Ah, tchor tchor ligi aussi. Tu connais. <laughs> Tous les jours, tout pas seulement le cadeau de alors. Mm. le cadeau ne pas seulement le jour de la Saint-Valentin. On peut faire, je poser la question, vous appelez comment Et toi Ok. Bon, en ce moment, je avec Erta de presse la sa soo de presse d'information asalaamaaleykum en ce moment ñu ngi ni taxaw ak Momadou Momadou moom nee na jabar ji da koy dóor guddeeg bëccëg te loolu da cee bëgg a wax sénégalais yi xam loolu metti na waaw asalaamaaleykum mbokk yi maa leen di nuyu di leen siyaare si liggéey yi ñuy liggéey ni metti na daanaka liggéey BRT bi waaw dañuy teel a xëy 5 heures du matin la ñuy xëy wàcc 6 heures et demi waaw maanaam coono gi bëri na liggéey bi mu ngi avancé bu baax a baax a baax a baax ñu ngi si gis tamit suñu bopp bu baax waaw merci beaucoup merci mais yaa ngi waajal Saint Valentin waaw waajaluma dara sax. waajaloo dara. mais xaaral ma jël la. noo tudd. Bàcc laa tudd. Bàcc waaw xaaral ma jël la. baax na bon en ce Bàcc maa ngi taxaw ak Bàcc Bàcc moom nee na mënul sëy lu weesu cinq minutes. <laughs> saa yow <laughs> lay teg nii. ci Diop lañ jóge nii ci Diop lañ jóge. ah maa ngi nii de. mën na jox maa ngi waaw. ma xaaral léegi Jibi laa tudd. bon en maa ngi taxaw ak jibi jibi nee na moom mënul lu weesu cinq minutes. Hmm? waaw maa ngi ko instant bi réew mi métti na maa ngi nañu jàppale baay ñu liggéey instant yi jeunes yi soxla nañu liggéey bu baax ñu ngi nii ñu gis nga ni ci sàncee lañ jóge nii dañoo xëy di dóor bugguñu sàcc bugguñu jël alal jàmbur looloo tax ñuy dóor suwaar xam nga léegi bi daal zone du Sénégal dafa soxla nañu a besoin beaucoup d'emplois il faut nous aider il faut nous aider daal à Beaucoup de travail. Voilà. Toujours travail. Oui. Allez. Merci beaucoup. luy pimpi. pimpi. luy pimpi. non man il faut nga wax ma nag la xam dafa logique. man ba may ay pimp ay yooyu je suis pas dedans. da nga may wax carrément femme wala homme. wala nga wax ma exactement kii. lan la jigéen ñi def pour Saint-Valentin la Saint-Valentin bi loolu nga bëgg a wax. ok en quelque sorte. waaw waaw ci benn nga def résumé bu ndaw rek c'est bon. waaw bon en ce maa ngi ni taxaw ak papi papi moom nee na mënul sëy lu weesu cinq minutes. mënul sëy kan ma loolu. <laughs> non wax ma loolu mais bu changé sujet bi. non non bu changé sujet bi boobu Saint-Valentin la ñuy wax bu changé sujet bi. Saint-Valentin non ñu ne célibataire la mbaay ak seen ak ñuy bàyyi tamit. xaaral ma jël la interview noo tudd. kan man. Mouhamed laa tudd. Mouhamed nan. Ba. bon maa ngi ni taxaw ak Momo Momo moom nee na mënul sëy lu weesu cinq minutes. <laughs> non <laughs> non grave bi loolu la woon baay. <laughs> tout avec va quoi te maa ngi ni taxaw ak Sidi Touré Sidi Touré moom nee na mënul sëy lu weesu cinq minutes. waaw Saint-Valentin bi nii la rek Saint-Valentin bi xam nga ñëpp loolu du Sénégal rek fépp monde bi yëpp. kon ak sa jabar wala ak sa sa daal. Hmm. <laughs> par rapport vous êtes des nouveaux. nous sommes des nouveaux. vous allez parler par rapport vous êtes des anciens. par rapport à la situation votre intégration est-ce que ça s'est bien passé ou pas. ah INSIP. waaw l'intégration par rapport aux Sénégalais vous à l'accueil. sont. ils donc on va faire une on comment tu t'appelles. Béni. et toi. Grâce ok c'est bon. C'est bon. En ce moment, je suis avec Benny et Grace. Eux, ils sont en couple depuis trois ans et ils ne peuvent pas le dire à tout le monde. Euh, je veux dire quoi, bon <laughs> Que tu es en couple avec elle. Ah, que je suis en couple avec elle ah, Mais c'est aussi vrai, je suis en couple avec elle. je suis en couple avec elle. euh, <laughs> euh. non, merci beaucoup. merci. Tu es célibataire ou marié Je suis célibataire. Non, tout Cheikh Ahmed Bamba. Hein Cheikh Ahmed Bamba Cissé. Cissé, ok. Ah. Bon, en ce moment, je suis. Euh, maa ngi nii ak Cissé Cissé moom nee na mënul sëy lu weesu cinq minutes non je suis pas dit ça mais bon je faut pas dire ça mais bon je wax léegi nii balaa interview commencé. non même pas. même pas. ban pël ngeen dégg pël Fuuta. pël Guinée hmm. bon en ce moment maa ngi nii noo noo tudd. Souleymane Souleymane bon en ce moment maa ngi ni taxaw ak Souleymane ak Khamid ñoom ñaar nee dañuy bëggante dañoo bëgg génn ci Saint-Valentin bi. ah lan la may waar. Hmm? lan la may waar. man man ñaar da bëggante. non man dégg ma wolof. Fatou. bon en ce maa ngi ni taxaw ak Fatou Fatou moom nee benn problème la mënul fidèle mënul génn ak benn góor. <laughs> noo tudd. Seydina. bon en ce maa ngi taxaw ak Momo Momo moom nee na mënul sëy lu cinq minutes. ay <laughs> ba li ngay teg <laughs> hmm? saa yi. bon ah waaw. na nga tudd Milkouzo. Alain Alain. bon en ce moment maa ngi taxaw ak Milkouzo ak Alain ñoom nee nañu mënuñu seeg jigéen lu weesu cinq minutes. i ñaari minutes. cinq minutes cinq minutes. waaw loolu dafa gàtt ay cinq minutes nit ñi waaye waxu deux heures de temps mais waxu cinq minutes gain minutes nga may wax rek may gaaw trente minutes ba quarante su mu nee nee amal jàmm eh, waay yow yaa seey <laughs> waaw mais mu ne cinq minutes moo tolloowul geen bàyyi ñun instant yi ay waxu deux heures de temps affaire yooyu noonu mooy tolloo au minimum maam au ah. minimum le building rek muy gaaw bon on est là ci benn quartier bu tudd la pipe vous savez c'est quoi la pipe C'est pas c'est pas la pub comme ça, j'ai pas dit ça. Non non. La pub s'appelle prévention prévention incendie, panique, explosion. C'est ça s'appelle la pub. Donc la pub boo ko jëlee prévention incendie, <laughs> panique, <laughs> explosion. <laughs> C'est la pub. Faisons la pub. Et la pub elle est très importante dans la vie quoi. Donc faisons la pub, pipons, piper. Quand t'as quelque chose à piper, faut piper quoi. Bon, c'était tout aujourd'hui avec Télé Sénégal. Nous vous donnons rendez-vous prochainement, mais n'oubliez pas de vous abonner. Après ngeen xam bouton affaire bu ndaw bu fi nekk foofu noonu ngeen activer ko ngeen xam ne à chaque moment bu ñu dugalee vidéo di ngeen ko jot. D'ici là, portez-vous bien. Derrière la caméra, c'était Rachid. Présentation Bachir, KMB di leen jox rendez Kirip kirip pap